Chers internautes, vous regardez votre TV officiel. La première télévision du Bawal. jooju alxuraan كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور موتا القرآن لير لا يوننت بي لير لا القرآن لير لا يوننت بي لير لا دين لير لا أفمن سرح الله صدره للإسلام فهو على نور ها يوننت بي سراجا منير لا لير لا موتا بوكو جيلي جيلي كو تكو ام لير بوكو جيلي تكو ام لير رك ليغا بيغ تي القرآن جوجو غاي ام moo tax ñi ko jëlee ci bàyyi gën si ñëpp rëccuwuñ gisoo ci kuy watut dabala wala kuy sëf nii wala kuy def naa wala koo xam ne bu demee fam dem soppiku déedéet alxuraan ju leer joo xam ne ki nga koy jëlee ci moom danga ko koy yëg dama wax ne yàlla ci ñaari tur yi rek lay wuyu nit mooy xaribu ak mutaxaali xaribu kum ci wuyu da ngay bëri ay jooy lool man bi ma ko liiree Abdoul du baax yi wax ko dama ne loolu bàyyi galas doy na ci seede dans le ba ma njëkkee liir ci saxabu Idris Cheikh Abdoul Aziz bu wax ne yàlla ci ñaari tur yooyu lay wuy nit mooy xaribu ak mutahaali ma ne xaribu moom ko wër fenn moom dama jàpp bàyyi ba sté ba pare léegi nag di wër mutahaali waaye fan yi bi ma gisee suñ mën taxaa xaartaay yi ma ne waa ndeke waajaa ngi mutahaalee ngi noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah macha allah jëf sëñ Ndongo wax dëgg yàlla commentaire yi am na solo waaye ñu sant tamit euh, sëriñ Souleymane Sène bu baax ndax jàpp naa ne alxuraan moom kooku doon waxtaanee fii ba suba doo fi jóg euh, dafa am mbokk moo xam ne daa bëggoon alxuraan lool te suñu borom mënuloo ko mënul ko mu fexe ba yor ab kaamilam rek képp ku ngeen ci jàkka ji rek. mun la dimbale ma jàngal fi benn baat waaye ma barkeeloo kooko tiim téere bi jàng aaya jox bu keneen génnaa tamit noo ko dimbale ma xool fii waaye jàng mu xool jàng jox mu faatu sëñ boobu bi mu faatoo ñu koy waxtu ñu koy denc waxtu timis mu dem ba xaw lëndëm ñuy xaar doom ji mu ñëw di ko xaar far mu far lëndëm faf bi doom ji ñëwee ñuy jàmm naan fan la ñuy jëlee ab lampe bu ñuy teg yu mel noonu naka lañ ubbi góor gi rek armé la taj yi leer nañ nekk te woo barkeb kaamil boobu la suñu borom fay noonu nga xamné barke bi fu ko tak yesu nako al hasan al basri buñ ko masaan wax ne ko fulaanun yaxfasu quran manam diw dafa mokal al qur'an da nan la bal al qur'an yahfazuhu al qur'an kay moo koy يعني دي واتو الخوان دي الخوان دي بابو موجي واتو الخوان يحفظه كون موي تيري بيغي خامن نكو سيرن سليمان واخي تيلستيو خادم جيمي نيب الى الله بالقران لا واخ الى الله بالقران ماغي ووتو جيمي سي يالا واي بالقران لا كو تك والسنه هدني صرفت كله مانام تيلا جيمي نيب القران والسنه تيلا جيمي نيب تا نك والقلب خاشع قلبك واخ قلب اندك رجل يالا كون وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ذا عمل يكون fata عند شكر akrami موي تيري bi خامني كوتي ne تا نيك تا ديفو التفات التفات موي defoo نيكول iltifaat ني رك دي واي التفات موي nga nek bam yag nga ne ah li mom ministre yi amul xaalis dem seti lenen waye nga nek ci nek ci rek te gestu woo nee yow yaay nek za amalin yakun fata yaay nek waja waye ne ko waja ci gaaji de ci gaañi de yaa ngi nekk waaja hinda shakuri akram te yàlla mais fii ci àdduna mu xañ na ne la lay considéré moom kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon ñu continuer liggéey bi raafi'a ku kayoon ku kayoon lool te ñëpp na daa kayoon ci àdduna ñu jékki-jékki na xanaa kii bi jëm képp ma nga jëm sawaar ku suufe woon lool te ñëpp xeeb mu doon xanaa ci jëm képp bis boobu bis bu dara bàyyi xel la inna rabbahum bihim yawma isin la xabiir na ngeen xëy na ngeen xam ne seen borom ca bis ba xabiir lay woon expert lay woon dara du ko laa yugaadiru sagiiratan wala kabiira du bàyyi lu néew lu néew néew du bàyyi lu rëy lu rëy rëy wa kulluhum aatiihi yawmal qiyaamati fardaa kenn ku nekk rek dana la woo individuellement maanaam kenn par kenn la wax wa kulluhum aatiihi yawmal qiyaamati fardaa yëpp laay woo farda maanaam furaada par kenn kenn dañuy def te lu dul fa jëf rek dina ko jàllale lu dul fa jëf rek dina ko jàllale kon damay faral di wax di wax di wax xale yi may leen fii ci àdduna euh, lu nit gàtt gàtt xam-xam xam na ni ñu wutee compte Wave wala compte Orange Money wala compte bancaire te loolu ay xeetu compte la yoo xam ne dañ ciy liggéey ngir sóor seen àdduna nga xam ne waa lu liggéey def ko ci. lu mu liggéey def ko ngir am na lu ñu préparé loo xam ne bu ñëwee mu mën a sotti ba ne leen nag noonu mu amee fii ci àdduna ay compte àll yow xam dana amee compte foofu nga la boo ne loo ko dugg xëy ba sax ab compte la boo xam ne loo ko duggul doo ko fekk kon nii ñuy fexee bay am compte fii ci àdduna xam sa ko xam sa lépp di ko noo war a préparé di fexe sa compte ba ci àllaaxira muy xayaatu barsax yi muy dund barsax gën nga xam ne mooy première étape bi ñu jaar muy xayaatu barsax yi nga xam ne li moo commencé woon ci suñu maam Adama ba suñu joon yàlla tey ñëpp tamit toog di xaar ceeb wax ñu tuddee ak barsax kon loolu lan mooy lan lañ koy tuddee dañu dund moom lañ koy dundee mooy lañ defoon imma shaakiran wa imma kafuuraa ben mu nekk jëf bi yàlla gërëm mu nekk noflaay boo xam ne yow da nga bokk ci ñuy wax ne bu ñu la ne kan moo ñu yee ci suñu nelaw yu tëdd yi suñu nelaw yu neex yi ku ñu yee nga xam ne sax doo bëgg a dekk ya waylana man ba'athanaa min marqadinaa hada ku ñu yee ci suñu nelaw yi de kon yàlla ñu jàll boole ci ñooñu su ko defee kon ñu bàyyi fa rek ci bis boobu tey jëfal yow nga xiyaam jëfal nga xam ne noonu jëfalee àddina iskale suñu yéene su ko defee suñu borom dana ñëw dimbal bu baax ma baax na kon lépp loo xam ne wax nañ ko fi suba ba léegi man aadi noonu li ma dendal dañ xam ne loolu ci baaxu yàlla subhanahu wa taala la buñ ci jóg tamit nag du suñu yéene waaye defar rek lañ bëggoon lépp lu ci jub daal ñu koy sant yàlla yàlla suñu borom def aw yiw boole ñu ko jël yëpp lépp lu ci dëng nag yàlla suñu borom sotti aw yiw boole ñu ko jël yëpp إن أريد إلا حفظ الله ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وكل عام وأنتم بخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. sëriñ bi sàkku ci Euh, nun ci suñu bopp war nañ koo xam wax naa ko fi daaw jéeg dama ko fekk muy def réunion mu wàcc sama oto ñëw toog ndax man fi laa dëkk màgg waa dëkk bi na bokk réew mi fi lañuy ñu màgge bi ni ñu toll mu am loo xam ne nag ñoom laa koy wax ndax moom def na li ko war ndax li fi nekk mooy wilaaye ak wiraasa wilaaye moom borom a ko yokk waay wiraasa gi li mu ci am moom mi ngi koy yaatal kon jaanu wàcc na waxoon naa wa dëkk bi ne la ñu itam maanaam géej géej bu la fekk see boo sàgganee buy dem tànk yu tooy ngay dese te Cheikh Mouhamadou Fadel géej la gu ñëw ci dëkk bi am na lu ñu koy jàppee day tooyal suñu tànk rek dellu fa mu jóge woon te loolu nag yaddeel lay jur da wax naa ne keroog ne dañoo waroon jël njaboot gi màng yëpp yóbbul ko ko fa mu nekk moo def ñoom alxuraan def ñoom tarbiya defar leen ngeen di ko fa fekk ak li ngeen am loolu moo jaadu woon waaye moom mu jóg ak woyefam ak xam mission bi mu yor ngir liggéey seelu xaddiim ñëw fii ci lulub ñëw fekk si leen toog ak yéen di jàngal seeni doom di leen yar loolu lu ñu war a bàyyi xel la ndax lu rëy la wax naa itam keroog ni leen bu nu ko meen yàpp ko ndax nit ku ñuul dafa baaxoo lu ko jégué mu mbir ko rek mu yap ko dafa ci yombu fi mu tok limu mu ak limu don doon su ko doonoon ba manam bu ko tok ci dar marché bi ko yalla jox ba ngeen ko gis da ngeen di rang lamb seen ko suk di wër di ko set mu wacc marché ba bobu yëpp tok ci suuf ñew fekk ci leen ngir yar seen dom jangal leen ah lii war nañ ko bàyyi xel de lim fi indi ci leer wax nañ ko alquran mooy xablullahi almatin buum gi gën a dëgër mooy alquran mu andi ko fi di ko jàngale ci njàngale mi sëriñ bi wax léegi ndax innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirukum tathira laabal googee ku mu nekk ci yow Quran nekk ci yow foo ko joxe ña ngi ko jox danañ mën a laab waaye bu amul déedéet sëriñ bi mel noonu aslan ñëw fekk si leen wala fekk sunu nun bawal ubbi daara te daara yi ñu koy xeex système bii mu ko yore ñu koy xeex te bis bu ñu ko xeexee yàlla tere duñ ci mën dara sax ndax Qur'an mën nañ koo xeex yàqoo ci waaye kenn mënu koo yàq waaye nit mën naa sàggan nag ba yàqule ci yow sa wàll bis bu ñu sàgganee ba sunu wàll yàqu ci rek àdduna tukki ndax moo yor Sénégal moo yor àdduna bi yëpp moom daara li ñu fi incarné di ko fi indi loolu amul solo lii mooy li am solo muy alxuraanul karim yonent bi dafa wax ni dëkk bu ñuy jàngee alxuraan moo gën dëkk bi ñu ko jàngewul kër gi ñuy jàngee alxuraan moo gën kër gi ñu ko jàngewul waaye ci biir kër gi néeg bi ñuy jànge alxuraan moo gën néeg bi ñu ko jàngewul moom mu fexe ba kër gu nekk ci li ma foog am na ko fay jàng alxuraan moom Cheikh Mamadou Fadel mu fexe ba kër gu nekk benn lampa nga fay takk muy lampa alxuraan te alxuraan benn sëriñ daara daa ñëwoon ca daara ja sax dongo cax tax dongo yi بدأت من الأعلى إلى غير أصلي أريد جوابا للسؤال المعجل دانيو شي دونغي ني لين دما تام دما جوغي سا كو دي واتي سي تجو مسوف خام لي ني خام موي كو جوغي سا كو سي سوف غورا جيم مو لي نك مان نك دما جوغي سا كو دي واتي سي تجو مسوف لي بو لا لين جوخ دونغي نكو خامونو كو موي القران كتاب الله الف لام ميم ak min la woon naa si benn lañu lépp quraan la lépp kaw la amul kaw suuf kon boobu dong moo am la ca ëppal ci mooy ñi ko jàng man ko xam ko toog ci seen barke dafa bari de ñu jàngale ko waaye Cheikh Modou Fadel yàlla boole ko ci loolu daf ko jàng man ko di ko tasaare di ko jàngale te dañu wax ni إذا كان جهل الناس مدعاة قيهم فليس سوى التعليم للرسل سلم فلو قيل من يستنهز القوم إلى العلا إذا شاء من لحلت المعلم المعلم أبناء الابن الطبيب هم يساوي سقم الجهل والجهل مسقم وما هو إلا كوكب في سمائهم به يهتدي صار إلى المجد منهم فتبقى أقل معلم إنهم عظيم كياق الوالدين أو أعظم فإن لهم من كل حجا وهو جوهر وللوالدين العصم واللحم والدم كوكب مهيكي توق حق جان لك المعلم الرباني كسلك باخ كوي جان القرآن بنجي بجمون الرير كان خمط الفوجم nañ jël suñu laab jox ko jàngalekatu alxuraan mu am nu tegaat na ci leeru xuraan ñun ñëpp nu gënde ko jàngalekat bi bi diw la boo xam ne ci asamaan day gindeeku réer loolu sëriñ bi toog fi ñu dëkk bii mu ne nag ak xam bu ko xeeb fala tabxas aqal muallim innahu azimuka xaqil walidayn aw azamu xaq jàngalekat alxuraan dafa mel ni àqi waajur wala sax moo ko gën a foor moo ko gën a foor de ndax ki dafa nekk muallim ba pare nek khudwa ñaar yu ñu ma nga nek muallim te kenn du roy ci yow wa ki dafa nek muallim ba fa nek khudwa bo nek ci wetam jàngalu la bu lo yaré ni nga wara mel non ngay mel ci bi yar ak talibi lolu yombu ci jamono yi ñu kon al muallim rabbaani xaqam moo gën a foor xaqu ñaari wajur boko waxé nak ñu ne la rabbuka an la ta'budu illa iya al waadina insaana waaw dëgg la waaye leeral na ko al muallimu rabbaani kooku mooy yar roox tarbiya ko tasfiya ko tarxiya tarqiya ko yégal ko ci maratib yi moo man loolu waaye waajur wi allaxmu wa damu yàpp wi ak deret ji rek la moom loolu la am te loolu suuf si lañ koy defaral suuf si lu mu duutu suuf lañ koy dugal waaye ki yar roox gi nga xëy ëllëg mooy texe moy texee di kooku xàqam moo gën a foor xàqi wujur bi nga xamne ndax al walatu waladani daani khalbi xal bi walatu sulbi bi walatu sul bi nag yomb na waaye walatul xal jafe te ku jox dom ji ku ko jox inshallah dana ko dana ko dana ko def dom jo xamne ne la es yonte la Isa waxoon man lam yewlat marratayni falan yalida fi malakutillaahi ku juddu ñaar yoon do dugg ci péewu yàlla bi fo nga am baay bu la jur ci min al abu tayni wal abu diini baay bu la jur ci ban ak baay bu jur ci diine baay bi la jur ci ban boo fay were mu faj di jox ngay lekk jox ngay naan xotti yére ji la joxal foofu la mën yem waaye ala bu diini bàyyi diine bi mooy yar sa defar ko ba yéeg ko ci marché bi ba nga doon dara tey doon ko ëllëg kon li sëriñ bi wax léegi ci benn bayit boo xam ne Seex Xaadim wax na ko ci Masaalikul Jinaan loolu doy na ci taalibe bi waaye su ma yu basmilu sabiyu min maktabin yaktub lahu aliyu wa li walidayhi wa li man yualimu baraatan naarihi kon mu ne tax na mu loolu ndigal la yow loo bëgg jaamu yàlla am ngërëmal yàlla dugg aljana wala déet nga jël doom يبغي يسرين دار بو من الشيخ مودي فادل مونا بسم الله بسم الله نجيق الليم جيق البايم جيق الخلبي جيق الجار الكربي كان دو جدو سوارا لا لن بغ بو فكي انا يبغي القرآن رتش للا جيلا سودام كو جاخ كسرين بي ndax lolu rek ci bako sodom jappé rawu la kon nañu xam lolu nun wa lulup nañu xam né ab lamp ñëw na fekk ci leen jël njaboor gi bëgg leen tak yoonu saatu mu tank lolu moy suñu bénéfice lolou muai sunu bénéfice rasulullah sallallahu alaihi wasallam nee na ku fi jóge jubah fi nyana ju bax ju lay ñaanal sadaqa jariya la sarax bo xam bo duggé bammel xorom nek ci kaw suuf dina jangal alquran dina jangal qasida dina ñaanal yalla mo ci gëna yey bobu sarax du jeex mukk te moy wala salih yad'u lahu dom ju bax ju lay ñaanal yalla mo gëna baye fa ay milliard yo bo fi baye ñing ko baye buñ ci jaamu yalla ñom ñoko mom way buñ ci defal naqar yalla ñu biñ la bakkar ba loolu ko jar kon bàyyi fi doom bu mën alxuraan doom ju ko mokkal doom ju am yàlla am yonante bi am ak taalibi moo gën ter moo gën a nekk trésor moo ëpp kon lii maa ngi koy fàttali waa dëkk bi ñu jàpp ne li ma waxoon léegi mooy géej bu la fekk see ba sàgg ne tànk yu tooy ngay dese da ngay fexe ba géej gi ñëw ak jënam nga waranti ko rëbbi mu andil la nga fexe tooy ca xib tooy ca xipp te mooy fexe dëkk bi am ay géej géej géej te mooy njaboot yoo xëy man nañu alxuraan loolu mooy sens si loolu mooy njariñ li loolu mooy xam lan la fi suñ fàllu di def kon fa tabarakallahu dañu mënu ko ñàkk yëkkati kàddu ndax sëriñ bii li muy def ñun ñi lay dimbali ñu dëkk ci gox bi loolu yàlla xam na ko kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla liggéey bi gën a barke te barke na ba noppi sax incha allah waaye maa ngi dénk sama bopp dénk waa dëkk bi nañu dollee góorgóorlu jàpp daara ji defar ko ba mu mel ni nga xam ne bii fa tabarakallahu noonu la ko sëriñ bu bëggee te li ma faral di def mooy maanaam man de sama wàll ngi nii ana ku fi nekk sama wàll ngi nii jëm ci daara ji ana ku nekk ci bi dëkk bi fu waay nekk na génne su fekkee bëgg naam am ngërëmal yàlla ngërëmal yonent bi ngërëmal Seexul Xadiim ngërëmal sëñ Fàllu mi ak gan yu baax yi na jël nañ am luñ ci teg na am ku jóg nañu dajale sama wàll ngi nii ana sëñ jim ding sëriñ jibril ñëng ana nga na ci ñëpp teg ñu def ko ci daara ji ngir jëmmu alxuraan jëmmu yonante bi saa sallam jëmmu seelu xadim waaye jëmmu suñ suñ fàllu suñ mbaa soxlu mbàkke bi na ko ñëpp def ko ko def yàlla nga yokk déwén te incha allah ndax in ahsantum ahsantum li anfusikum waaye wa in asatum falaha ku def la baax sa bopp ñeel li ñuy joxe feneen ci xew yi ci ndeyale yi ci bàjjana yi du ko dugal feneen nañ ko def ci daara ji baax di gàttal kàddu yi rek ndax xam naa ne jotaay bi ak kilifa yi xaw na yàgg lool ñu ngi koy tuub bu wér euh, li waral suñ jotaay tey rek sant yàlla ba ñu talee fekkee desiwaat fii fas yéene ko ànd ak yéen ni ñu ko daan ànd ak yéen at bu ne di waxati alhamdulilahi rabil alamin waaye jaajëfal sëriñ euh, Fallou Mbacke moom sëñ Maam Mor ma jigéen Mbacke mi bërki démb rek maa ngi toog rajo di ko wax yaakaar naa ne yaatal naa ko ci rajo CNR FM Dakar 88 point 6 yaatal naa ko ci jant BFM Touba 95 point 2 yaatal naa ko fépp ci àdduna bi foo xam ne jaar naa fa partout si diaspora bi Sëriñ fàllu nag lii mu ñu defal li ma ko wax rek laay dolliwaat di waxaat ndax duy bari wax jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke def na ci suñuy doom loo xam ne mënuñu ko ci ñoom tànkaal bu ma toppee wax gi sax def naa damay sori ñu ngi koy jaajëfal waaye di waxaat rek jërëjëf sëriñ Assane Fall ndax sëriñ Fallu Mbàkke bu fi bàyyee sëriñ Assane mook mu yore ndongo yi ñu jàng alxuraan dañ ko naan jërëjëf ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xayrukum man taallama alxuraan wa allamahu loolu moo waral at bu nekk lu may donte nitu rajo laa waaye ñemewuma lii may def tey dinaa ko forcé maa ngi dagaanaat kullu ku fi nekk ku ne ci barkeb alxuraan ci màggug alxuraan ci mbaaxug alxuraan nga xam ne tey moo ñuy defar defar suñuy doom sëñ Fallou defaral ñu suñu dëkk bi yal na fi yàgg te waaye sëñ Assane dañ koo amee njukkal maa ngi ñaan kullu ku fi nekk ku ne lillaahi wa rasuuli nga yëkkati ki sa yéene yëkkati ki sa alal la nga am lu mu tuut lu mu bari lu mu gën a néew nag na di na doon ab waaye bu ko ëppoon itam ba jël ku nekk ku nekk rek maa ngi lay dagaan ku ko def ren yal na nga ko defaat déwoon ci barkeb alxuraan sëriñ Assane Fall jar na ko sëñ asan jar na ko sëñ Assane jar na ko jërëjëf yaaram sëñ Fallou Mbacke ndeysaan sëriñ bi ubbi na ma tarkaala Mbacke waaye defe naa ne man itam dinaa ci tegab junni dinaa ci tegab junni jërëjëf yaaram góor yàlla yeeg ñépp nañ ñëw ngir yàlla ak yonent bi sagal leen sagal leen ñu jàppale leen ñu ndax suñu mbégte gi sëñ Assane Fall lépp moom la jëwriñ ubbil ma sama poset génneel ma foofu junni wala ñaari junni. mooy seen kilifa ñuy wax ci kàddoom sant na ñëpp gërëm na ñëpp sëriñ Fallou yow it mi ngi lay delloo ak cant sëñ Maxtaar mi ngi lay delloo sant mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal ci taxawaay bii nga xam ne da nga koo taxawee fii ci tund wii taxawee ko ci dëkk bi te fii be do bokk ci benn ci taxawaay yi nga taxaw ndax fenn fu ne yaa ngi fay ubbi daara di fa jàngale te di ko def ngir jëmmi suñ borom subhanahu wa taala ak di tasaare liggéeyam sëñ tuba sëñ Matar nee na loolu nag mi ngi lay ci sant di la gërëm xamal ne njaboot gépp su ne ni mel na ni yow xolam dana sedd xelam dana dal waaye njaboot yëpp it ñu ngi ci sa ginnaaw lii nga defit mboolem ku bokku ci sëñ mourma digeen rek mom ko defal ndax dañ ne àll kat desu ko nayo mat waye nak amna na bu amul mat kon li nga def ñepp nga ko defal wa keur sëñ touba yëpp nga ko defal ndax jamono dafa yaqku kilifa yëpp léegi kenn ku nekk ñu ci bëri bok ci yi tukki ci leneen ci leneen yow nak bo fekke li touba gënon na bëgg muy alquran nga diko ko ci julit yi kon wa keur seigne Mor jigen jigéen ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu seigne Maxtaar Mbàkke neena sant na la gërëm na la li ngay def mom nga ko defal te li nga koy defal mbolam sa keur seigne Maxtaar ma jigen mbolam keur seigne Mor jigen ak lu bokk seigne Coonaay sa ñom nga ko defal waye njabot gépp it ñu ngi maase di la sant di la gërëm di la ñaanal so fon guddu fepp fo xamni dekk amna fa rek yàlla na sa liggey bi egg fofa te suñ borom gërëm lépp ci bi sëñ tubaa ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax ndax kilifa gu baax des koy sagoo te lii nga def ñëpp la war kon nag njaboot yëpp ñu ngi lay maase di la sant di la gërëm di sant nag waa dëkk bi yëpp ndax gis nan daare ji ni muy doxee xam na ne ku bokk ku nekk ci dëkk bi rek wala tund bi jàpp nga ci ñi fi nekk ak ñi nga xamante bi danoo nekk Ndakaaru wala tubaa wala fu mu waay mën a nekk ak ñi nga xamante danoo nekkoon ci dëkk bii tey doonoon ay taalibe te fab seen kër joxe ko ñu def ko daara ñoom ñépp ñu ngi maase di leen sant di leen gërëm mboolem koo xamante bi bokk nga ci sëñ ma Madjiguène rek amee na leen ak cant amee leen gërëm ak suñ bokk yu baax yii nga xam ne lu ñu woote rek ànd nañ kook ñun muy sëñ seexu naa ñoom ñi ak sëñ xaadim loo ba ci sëñ maam ngañ ak mboolem ñi nga xamante bi ñëwoon nañ fi te wàññi ko ñoom ñëpp ñu ngi maase di leen sant di leen gërëm dëkk bi mboolem dongo boo xam ne mi ngi fi doo yelwaani doo póot doo def dara te loolu bu mënee am kon ñii dëkk ci dëkk bi ñoo tax kon yéen waa dëkk bi ñu ngi leen di sant bi sëñ Fallou andee xéewal gi andil leen ko yéen jàpp ngeen ko bu baax ab donga tumuraanki wu fi ab dongo yelwaani wut ab donga póotut te donga bu bu ñëw ngeen njëkkante ko boole kook seen i teraanga fa sëñ Fallou teg ko ci kaw kon liggéey bii ngeen ànd muy liggéey bu yàlla di liggéey bu yonent bi di liggéey bu tubaa yàlla na leen ko suñ borom boole ba àjjana yàlla na fi alxuraan sax yàlla na fi leer sax sëñ Fallou nag andil na leen loo xamante ni bii moo gën àddina li ci biram ndax àddina ak li ci biiram alxuraan a ko gën alxuraan mooy defar nit te nit mooy ndëkk ci kaw suuf kon nag bu ñëwee fii di defar seen doom yi di ci defar leer ak suñ borom subhaanahu wa taala muy alxuraan karim kon yéen mënu leen koo fay ndax képp koo xam ne aw na la aw araf ci alxuraan buñ la buñ la euh, la defoon buñ la buñ la defoon mbuus mbuusu wurus wurus taxut nga mën koo fay kon sëñ Fallou moom kenn mënu koo fay waaye moom it nag sant na leen sant na leen yéen ñëpp mbooleem ku dëkk ci dëkk bi wala nga dëkk ci tund bi sëñ Fallou sant na la gërëm na la guddi dafa guddi nag waaye wax ji manoon na fee gën a yaatu kenn ku nekk ñu jaar ci sa tur jaar ci sa sant ñu ngi sant borom dëkk bi ci turu dëkk bi di sant imaam yi fi nekk di sant kilifay diine yi di sant góor ñi di sant jigéen ñi di sant mag ñi di sant ndaw ñi yàlla na ko suñ borom fekkeel woon na gën déwén te kenn ku nekk loo tële woon yàlla na ko suñ borom man loo sëñ Fallu njaboot gaa ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi ñaan sa yàlla yàlla yàggal sab taxawaay dëgëral ko bu baax a baax a baax a baax a baax ba li nga yéene ci kër sëñ Mor ma jigéen yéene ko ci kër sëñ Touba suñ borom defal la ko boolem loo yéene ci taalibe yi yéene ko ci dëkk bi te ngëneel la rek la xiiwal rek la yàlla na ko suñu borom eggale ca boole ni ko ñun ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin sant na ñëpp gërëm ñëpp ñu ngi sant soxna maa aw Mbàkke ak soxna Ndey ak soxna maam Binta ak mboolem soxna màggat ak mboolem ñu jóge Tuubaa ñëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf yàlla na ko suñu borom fekkaloo na ngeen déwén ci barkeb sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf sëñ Fallu sant na ñëpp gërëm na ñëpp daa xat rek waaye kon mu gën a yaatu waaye cant du weesu cant sant na ñëpp gërëm ñëpp jërë ngeen jëf ñu toftal ci serigne khadim lo muallimul quran di al qur'an su tuuba tuuba tuba njarim ñi wax tuuba njarim ab ci tuuba di al Quran, bu mag kon ñu dox ko kaddu gi mu joyal ay kaddoom wax wala la ci serigne bi mbokk la ci serigne bi ta ñag lool ñu bokko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أوصى بك وصرية ربي أعوذ بك من عمزات السياتين وأعوذ بك ربي أن يهردون هونك يا مهين وبك نستعين ربي يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوغي نيو مبولم جولي ني في تيو ييب اك مبوك طالبي دي جيل نيو بي ديكو توك سي لوخ سيرن فالو مباكي ميغا خامني مو ووتي بيس بو ماغ بو تيدي بي دي بيسو القران di bis boo xam ne bis bu yàlla gërëm la ak yonent bi ak Serigne Touba di nuyu mbokki taalibe yi fi teew yépp ak mbokki dëkkandoo yi ñoo ngi nuyu mbokki dëkkandoo yépp ci dalal dalal gin dalal gan yi ak yaatal gin yaatal gan ñi ak toppatoo gin toppatoo gan ñi lépp gis nan ko yàlla na leen suñu borom fay aw yiw noo ngi sant mbooleem ku fi rek te bis bi tax laa teew muy alxuraan noo ngi sant yàlla bu baax di sof suñuy kàddu ci kàddu yi nga xam ne moo jiitu di kàddu yu am solo muy alxuraan jifi fi jib ak souleyman sëñ ak mbollem kilifa yi fi jël kàddu ba ci sëriñ Modou Mbacke khayra mi di kàddu yu am solo loolu lépp weesuwul rek li yàlla gërëm ak yonent bi ak sëriñ Touba mom rek lañ di fatali ndax fatali mom dafa am solo lol fa sakri fa inna fa sakri inna faati sakra sa sakru man yakhsa fàttali kat nan di fàttali ndax fàttali dana jariñ ki bëgg a fàttaliku saya sakkaru man yax saa dana ko yombal ak ragal yàlla lool rek a tax ñuy fàttali kon am na solo lool fàttali am na solo lool ginnaaw loolu it ñoo ngi dénk suñu bopp di dénk mboolem waa dëkk bi ñu gën di jàpp ci daara ji bu baax a baax ndax kat sëñ Fallou ni ni ko ñi ma jiitu waxee mënoon naa yem Touba rek waaye génn Touba dikk yaatal liggéeyal sëriñ Touba bii nga xam ne lu yàlla gërëm la akub yonenteem andi ko ci dëkk bi na ngeen koy jàppale mooy téye donga yi yéen a nga ca di fóotal donga yi sàkkal ko për fukki fan juróom wala ngeen sàkkal ko ay bis loolu it yéen a nga ca xanaa soññee rek lay doon ak ndey daara yi it ni ngeen koy defee loolu it moom xam nañ ko gis nañ ko xanaa it soññee daa munta ñàkke rek ni ngeen di toppatoo xale yi di leen di fóotal te kenn ku ci ne xale ba nga yor ñu jox la ko nga féeteek moom mel na ne sax yaa ko gën bëgg ay waajuram loolu xam nañ ko bu baax ñu ngi leen ciy sant ñu ngi leen ciy gërëm loolu nag dafa mel ne sëñ Fallu ngeen koy defal wala waajur yi waaye dafa mel ne yàlla ngeen koy defal ndax man se la si yuxridu laa xarlan nan suñ borom moom ku ko lebal rek moo fay la bu ful la kon nag moom yàlla leen ci suñu borom defal a yiw ginnaaw loolu it alxuraan di lu màgg ndax sëriñ Tuubaa dafa ne bustaan yi kitaabullah ab toolam mooy alxuraanul karim kon nak so toolu tolup serigne touba di alcorane karim kep ko xamni si ya nga ca di ci ca lolu mom war nga sante yalla bu baax waye nak sun borom dafa meuna fay te yaatu ak fay ndax ki liggéeyal yalla ci tolam kep ku dik jappale ko ca mo xam foot mo xam mbubb mo xam balel ko mo xam nga yëkkati sa ñaar dërëm wala sa dërëm wala nga plastifié sab téré wala nga jënd wala nga lañ set guni khalima sax wala guni wata xalé bu ko ndax sun borom mom gis na lépp xam na lépp te loo ko defit moom moo loo jëf ci moom rek mu fay lalu ko ëpp kon nag ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di taxawaay bi di sant yit mbokk yi fi teew yëpp ginnaaw loolu yit mm, may wax ci turu mbokki euh, euh, taalibe yi nga xam ne ñoo jóge Touba di sëñ daara yi ah, may wax ci seen tur ci sant ngeen sant ak bis bi di seen bis ak sëñ Cheikh Awa Balla Diop mi nga xam ne moo nekk Daaru Tansil jiite raabita raabita bi tënku ci mbootaayu alxuraan ñi ñuy jàngale alxuraan seen mbootaay googu sëñ Cheikh Awa Balla jiitu jiite ko amoon na yéenay teew te su ne sëñ Cheikh Awa Balla mbootaay ba raabita boobu rek moo tënku ci sëñ Xaali Jaxate ak sëñ Xabaanum sëriñ Fallu moom Cheikh Ahmad Bamba bokk na ci ñi nga xam ne man teewal naa leen fi amoon nañ yéenay teew fi lool ñoom raabita bi mbootaay googee nag sëñ Seex aw Balla ko jiite feeceet daaru tansil lënkale daaru saw lënkale yit daaru minam lënkale it daaru saw lënkale it Touba Njaareem géemu jóge ñooñu maa leen fi teewal te su ma nee sëñ Seex Awa Balla Jóob it mën naa ne sëñ xaali jaxate mën naa ne it sëñ xabbaanum sëñ fallu ndax benn benn raabita bi rek ñoom ñu ngi leen fiy teewal ñi ngi jotale seenub teewaay ak seenub cant waaye nag am nañ yéene yi ñëw lool waaye nag ginnaaw ma teew moom naa leen teewaaleel ak mbokki sëñ daara yi jógee ci tuubaay ñëpp kon nag ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp yàlla na suñu borom gën gërëm jotaay bi loolu ñu yërmande ak njëggal ak ngërëm te saxal ñu ci lim gërëm ak mbooleem julli ñi nga xam ne ñoo fi teewoon daaw te yàlla dogal teewuñu ren ñooñu it moo xam ñu jiitu ñooñu it yàlla leen yàlla defal yërmande ak njëggal ñi nga xam ne it fekk na leen fi ak mën a di ak tële jàpp leen ni yàlla gis na lépp mën na lépp yàlla na dindi tële googu dindi mën a di googu ba delloo leen ci seen man ñun ñi nga xam ne suñu borom wërsëgal nu am xel akuma akuk wér ban teew fiit yàlla na ko suñu borom gën ñu koo dolli yàlla na ko suñu borom na koo dolli ndax wa istaasana rabbukum la in zakartum la azidannakum suñu borom dafa waat ne ku sant rek ma dolli kon ñun sant nan ñoo ngi koy seedeel sunug cant ñoo ngi koy seedeel sunug cant ñoo ngi koy seedeel sunug cant di ñaan sun borom weer wii ñuy waaju dugg muy weeru yërmande ak njëggal ak ngërëm li ci nekk ci ay leer ak i ngërëm ak i yiw lépp yàlla na borom def ñu màng ko ci ay leer ak i ngërëm yàlla mën na ko muy yërmande jég njëggal géeg ngërëm li lépp mu ngi ci loxo sun borom te yomb na ko yàlla na ko sun borom yombalal te nangul ñu ko te fulal ñu ko ndax sunu borom kat mooy li yonent bi wax rek na asawumu lii wa naa aji si bi koor kat maa ko moom waaye man maa koy fayal sun maa koy fayal sama bopp kon nag weer wu màgg wu sell mi ngi waaj a ñëw nan ko waajal ci gëm yàlla ragal yàlla nan ko waajal ci gëm yàlla ak ragal yàlla nan ko waajal ci dugg ci ci yërmande ji dugg ci njëggal ak suñu borom ji dugg ci ngërëmal suñu borom ji buñ ci génnee set wécci set wécci tabbi àjjanal firdawsi yomb na suñu borom te mën nañu ko yàlla na ko yombalal bi barakati abdullahi wa xaadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanin ba képp ku fi dikk rek te bis bi tax laa jut tànk yi nga dikke dem bi ak dellu si yàlla ko suñu borom def aw yiw yàlla na ko suñu borom def aw yiw ndax sun borom nee na inna rahmatallahi xaribun min al muhsinin man suñu borom kat du ma sànk jëfi aji rafetal dellu yit yu ajral musinin waat ne du ma sànk it yoolub aj rafetal kon nag yàlla na sunu loolu ngërëm yooyu yëpp ak yiw yooyu yëpp yàlla na ko sunu borom nangu te ful ko te defal ñu ko suñ céerey jëf loolu ñu yërmaneem ak njéggalam ak ngërëmam te sawal ci lim ngërëm bi barakati abdullahi wa xaadima rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam kon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi jéggalu ñëpp addu bi sëriñ imam jaaja sekk ci suñu waajur kon ñu jox ko kàddu gi ñu bokk ko teewlu rek mu jotal ay kàddu bismillah naan ci yàlla mi nga xam ne nii ju jeexal dara maa yen fu yen yen faddu maa yen dallaahi moom sunu borom tabaraka wa taala moo ñu indil xéewal gii tey képp koo xam ne nii yenn nga fi wala nga ñëw fi sa xol sedd na guy rawatina ñi nga xam ne ñooy doomi lulub ñi dëkk lulub ndax lii bokku na ci mag ñi nga xamne ni ñoom la fi yalla jëk wacce mu doon seen bëgg bëgg muy jang alquran ak jangale man sama baay bi mu ñibisé da wax ne ku bëgg jang ñewal ma jangal la te duma fayu kenn woor na ñi ci bokk nanu daara ma ak mom mu juuf junk mi na wax ne señ mur sekk day bu sañan bu sax di bëre ji lu lulu moy daan kenn du ko daan kon limu mu lepp ci dekk bi mo doon ñu xam xam seen diine ba xam ne nii bu ëllëgee dinañ mën a jëriñu fii jëriñu fañ jëm bu ëllëgee te alxuraan nag bu ñu nee diine bu ñu nee lislaam bu ñu nee àjjana ëllëg alxuraan a tax ñuy wax boo demee ci téere yi am na benn téere buy wax ne day jàngale man taalima saalika lil wildaani kama tuallamahum uruful quraani li yusabbita ala qulubihim min fahmi diinallaahi wa saraihi kon ndeke ci jàng alquran da ciy dégg diine yàlla ji ak sariati muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu bu xasee nekk ci sa xol kenn duut la mën a fëkk di la yóbbu ci lenn loo xam ne ay caaxaan la kon sëriñ bi liñ bëgg a wax lépp mënuñu ko wax waaye daal suñu xol sedd na guy maanaam bis la boo xam ne nii bisab taar la bisab mbég la boo xam ne nii képp koo xam ne nii dëkkoo fi sax te jaar fi wala nga ñëw fi donc sa xol sedd na guy ci bis bi kon yàlla yàlla fayal nu la mën nu laa fay wàlla yàlla yàlla fayal nu la ndax ñun dey depuis nga wàcce ci dëkk bi ba nëga ni yow ji koy maalaa yen sërif nga yor soppeeku woo buntu kër yëpp mën nga caa mën nga caa dem koo dem itam danga koy def ni sa bopp def ko ni sa taalibe amoo xaj ak seen amoo frontière itam kon sëriñ bi loolu moom gone yi fi juddoo ak mag ñeeg ndaw ñeeg góor ñeeg jigéen ñi ñëpp xam nañu ko mën na maa waat ne bu fekkoon ne ay tool dafa bari wala gott am bu ñu war a gore di béy ni sëñ Saaliw di def kon boo ko wootee ñu defal la ko billaahi mën na maa waat yal ne boo amoon 4 kilomètres yoo xam nii kenn góoru ko nga ne damaa bëgg ñu gor ko bayal ma ko tool ñu gor ko lépp bay ko jaay ko jox la xaalis bi te lii du nekkul lu may wax rek bis bi wone na ko bu fekkee li may wax du dëgg yéen ñi nekk Touba di ay bokkam du ñëw di fekk fii géñ naa ci am na gone yoo xam ne bu ñu ay milliards tey sëriñ bii lu mu soxla ñu def ko lu mu soxla ñu def ko mi ngi nii laaj ko mi ngi te ku kuy mbokkam fii di di ko fekk fii xam nga xam nga loolu géñ naa ci yàlla na gone yi tey am na ci ñoo xam ne bu ñu yoroon ay milliards waxuma la sëriñ bi waaye ku bokk ak sëriñ bi sax dina la teral bis bi itteel nanu ah ñor nanu man bis bi damaa fekk ci ay programme suma mag gaañu ma nekk ci mu bàyyi ay xale yu ndaw ba bëkk démb laa jóge Dakar waaye dama laa xamal ne la képp ku dëkk lu tey sa sedd na képp ku dëkk lu am nga mbégte képp ku dëkk lu kontaan nga kon yàlla yàlla fayal nu leen noo ngi ñaan bis bii te de ca kanam rek loolu ñu naa tubaa ca kanam lulub ca kanam lulub ca kanam lulub ca kanam tubaa ca kanam waaye lulub ca kanam waaw waaw waaw jërë ngeen jëf kontaan nañ bu baax yéen ñii ngeen yóbbaale loolu ngeen yóbbaale loolu def ko mu di ab sëriñ ngeen xam ne sunu mbokk mi du nun ñëpp ngeen gën ñu koo jege wallaahi asim gërëm nañu ko sant nañu ko waaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asubilahi man saytaan rajim euh, mbooloo mi maa leen di siyaare yéen ñëpp leen nayu di si jiital sëñ Fallu di si jëral sëñ Fallou alxuraan su may boo doon sëñ Fallou alxuraan waaw parce que dafa sigi lulub sigi lu sigi bi yemul ci lulub tund wi yëpp ndereb reefan dëkk yi ñu wër yëpp euh, maa ngi ko ci sant bu baax a baax a baax di sant dëkk bi parce que ni ñu taxawoo sëñ Fallou ñun ñi di taalu béem euh, àggunu foofu xam na loolu yéene ji nag am nanu ko yéene ji am nanu ko waaye nanu ñaan yàlla parce que lii lu tàmbali la su neexee yàlla loolu dina nekk benn loolu waaw parce que mag ñi fi newoon jàmm lañu fi nekkoon ak salaam euh, ak juboo ba ci sunuy mag yi nga xam ne dañ fee yàlla dañ fee nekk ba ñu gaañu bay banu ñoom ñëpp dëkk bi jàmm fi wal sam sëñ Fallou ñëw nag jàmm jooju sëñ Fallou ful ko parce que alxuraan jàmm la lépp lu yàlla tere ci alxuraan rek wàññiwut yàlla dara mais jàmm lu indi nit jàmm la waaw lépp lu mu araamal jàmm lu indi jàmm indi nit jàmm la lu tax sëñ Fallou mii ah yàlla na fi yàgg di sant euh, doomi bàyyi mu sant Mbàkke di sant seen taxawaay ñoom ñëpp su sëñ Fallou ne coj fu mu dem ñëpp topp waaw ñoom it yàlla na fi yàlla bàyyi yàlla na fi yàlla yàggal yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay yàlla yàggal seen juboo jaay Seydina Muhammad waaw dëkk bii Luub it kilifa yi nekk fii nekkoon bàyyi mos kii doon wax léegi moo ma jàngal alxuraan moo fi doon jàngale à part moom dëkk bi ñëpp kenn jàngul fi woon ñun ñoo fi doon commencé doon jàng à part bàyyi moom doon jàngal ba yàlla dogal euh, ba mu làqoo jaay ji mii nekk par sëñ Fallu ñëw taal ba mu sekk doon taal sëñ Fallu xëpp ca isaa taal ba gën a jolli yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla taxawu yàlla ko yàlla sagal nii mu ta sagal sëñ Touba parce que sëñ Fallou waat naa ci yàlla ne stoppewul kenn wutewut taalu bi pour alal wutut taalu bi pour dara dara ja déedéet dëgg rek ak ak alxuraan mais sëñ Fallou ab taalu bi am xoolewu ko xaalis xoolewu ko dara sëñ Fallou lu muy woote sëñ liggéey bi sëñ Touba tax lu muy woote liggéey bi sëñ Touba tax waaw loo wóor na waa dëkk bi dëkk bii bi mu fiy sox neen soxlaw ma taalu bi taalu ku jéblu ci man soxlaw ma soxlaw ma borom alal joxe dama dangay yor alal ma lay ma ma lay ànd ak yow ca lu jubu lu jubadi déedéet gone yi la bëgg a defar ñu nekk góor yàlla ëllëg yàlla na ci yàlla jàppale yàlla na ko yàlla taxaw man nag damaa mënta wax ci nit parce que xëy na li ma mën a wax bëgg wax ci dëkk bi yëpp dafay xajul waaw ñii nekkoon samay morom ak suñu waajur jiitu dan fi am nun fi nekke woon ci jàmm ak salaam euh, akob yar ñu yar nu ci ay histoire du am suñu diggante mag ñi fi nekk du ñu am du nekk ay magi histoire ba nun ñuy dund ci loolu ba nun ñuy dund ci jàmm jooju ba ñu di ñun yi di xele ay ay yenn histoire yenn xel yoo xam mosuñu mosu jar muy moom jaaji mi Modou Mbane euh, am na yenn ñu gaañu Euh, ñoom ñëpp dañ fee nekk woon noonu waaw ah sëñ Fallou ñëw nag jël suñu doom yi nun waaw daanaka suñu doom laay mën a wax ba muy commencé sañ suñuy doom defar leen ba nga xam ne ñun ku ci nekk sax dangay sa doom daf lay tiim waaw parce que alxuraan su nee ci yow même sa bàyyi su loola néew ci moom sa bàyyi am na benn xool bu mu la xooy boo xam ne du bokk ak dama laa jur waaw parce que alxuraan sax alxuraan su feesee sa dee ak sa bopp doo yem kenn waaw tax sëñ Fallou mii maa ngi ko ñaanal yàlla na ko yàlla nañ ko boog sëñ Fallou rek waaw waaw moom mooy sëñ Fallou rek sëñ ko alxuraan man nag sama wax euh, damaa mënta wax ci mbooloo parce que am na yu bari xam sama wax sax sama xol day jóg euh, jërë ngeen jëf ginnaaw buñ sante yàlla julli si naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëfe Xaadimu Rasulullah jaaramaam Seex Rafal sëñ ñoo ngi jël suñu kàddu di ko sof ci kàddu kilifa gi muy Papa Niang di ñëpp buñ sañoon sax duñu wax wante comme que dañoo jox kàddu rek mënuñoo bañ a tàbbal ay kàddu ndax mbir mii sëñ Fallou ndereb gépp ñu ngi lay sant Papa Niang ndereb gépp ñu ngi lay sant kilifa yi la fi indi woon tey jii boo leen yeewoo rusloo woo leen ndax ba ñu toogee fii di waxtaan la nga waxoon ba léegi ca nga ne da nga leen doon wutu may taalu bi soxlawu may tool fu ma xamlee yàlla yonent bi Serigne Touba rek ma tax a jóg lool dong nga ma tax a jóg loolee itam. la nga leen waxoon waroo waa lu de wante waa lulub itam waruñu la ndax boo waroon waa lulub ñun ñee la fi indiwati rusloo wooñu ndax boo ñu rusloo woon da nga fi toog de xogale ko di laaj ay addiya ba nga ñëwee da ngaa sànc daara wàcce fa ay dong li ma mën a waat mooy bari na ci kër yoo xam ne fii tey bu dul cekkeen gee fekk jigéen mu yorab ab jukki di ko jàng guleet ci sëñ Fallu man fee wàcce ay kaamil guleet ci sëñ Fallu néew na jigéen man fee téye ab kaamil di ko jàng tey bari na fi lool waxuma ay góor de aw jigéen fii bi fi masaana am wóor na jaaji sekk mii ak waa dëkk bi mbisi nga koy sos moo koy tas dañ daan luyee oto ñaar fukki junni jëndi na di noos di tëgg ka feej misig yi dal tey loolu jóge na fi Touba loolu fi fekk kon Touba ndereb kon Mbàkke taxawaay bi yàlla na yàgg waroo leen dewante ñoom tam waruñu la ndax nag itam daara joo xam ne lu mat ñetti téeméeri dongoo nga fa te kenn du yalwaani jafe na di sant nag sëñ Assane mi nga xam ne moom moo yor daara ji ndax itam moom itam mënoon na ko fee bàyyi muy fo wala muy taxawaalu wante li ma wax rek sëñ Fallu du ànd ak kuy fo fowut foluwut yàlla yonent bi sëriñ Tuubaa alxuraan rek a ko ñor te itam nag géej ju fees dell loolu mën naa koo waat ndax am naa ci lu ma wér ci ne géej gu fees dell ku ko ñam bu dewee ne nga dolli loolu moom xam naa ko ku ko ñam bu dewee déwénee nga dolli kon alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi Mbàkke li ñu war a lépp mënuñu ko ndax tax toogaay bi yàgg na ah tey heure bi jot na kon nag Mbàkke ñu ngi lay ñaanal sow fan gudd wéral say cër yow de mu jëwoo ko mu ruus sëñ Mor ma jigéen Mbàkke tey de ku koy yeewoon doo doo ruus bu ñëwoon àdduna doo soppi toogaay yaag sa rakk yeeg sa doom yi nga am kon Mbàkke yàlla na nga yàgg ci kanam rek السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سوني كلفة ينعا خم دنيا في توك إنداني نوي بباخ دي سوني يا كاتي لك إن جابوا تسيح الخادم جر يلان بالو أقو بباخ سكادو ينعا خم دنيا ينكو يكتي وقت كيف على ماتي وانا تروب كوني يكتي وانت نك كوني نمبري تنقل تسرين بيجوه نمان تنقل جم وقت كادو يخلي دك بيب لولا ما تحملون يوم يا كواخ waaye ñu ngi leen di ziare bu baax di leen baalu àq bu baax ci coono bi nga xam ne dañ geen ko ci yoon yi di baaluwaat àq bu baax suñu yaay yi nga xam ne tam ñu ngi ci jataay ak suñu moroom yi yëpp di jaajëfal bu baax tamit Serigne Assane Fall mi nga xam ne tamit euh, li fi xale yi wax yëpp moo ko def ci ñoom kon di ñaanal tur tànk yëpp suñu borom guddal seenu fan ba li ñu yaakaar ci ñoom yëpp suñu borom defal ñu ko ndax dégg nañ léegi imam di wax. Euh, maanaam alxuraan ni mu xawoon a tuuraanke ci dëkk bi waaye firnde ji mooy suñu génération bi ndax man mii di wax tey mm, xam naa ne samay morom tey ku leen tasaloon ab kaamil fii pour ñu jàng ko moom dina xaw a jafe torop waaw te yaakaar naa suñu ay doom ak suñu ay jarbaat tey bu leen ko joxoon pour ñu wàcce ko day yomb lool kon dañuy sant Serigne Fallou bu baax di sant Serigne Assane Fall bu baax waaw di gën a soññaat rek ndaw ñi surtout ndawi Touba Ndereb yëpp ndax mën na maa wax ci Touba ndax Ndereb dafa xaw a waaye yàlla dogal na ndaw ñi fi nekk ñëpp euh, lépp lu ñuy yëngu ci sëriñ bi di ko yëngu ci diine man dama koy teew di fa teewal lu di jaxasoo ñoom kon mën na maa wax ci seen tur ñoom ñëpp xanaa di leen santaan bu baax di gën a soññ bu baax tamit ndaw ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci dëkk bi ndax li nga xam ne ne yàlla dafa dogal mënuloo ko nit jóge fu sori mënoon dem ci dëkk yu bari romb dëkk yu bari ñëw ba sa dëkk di la ko defal kooku amooloo ko fayee bu baax yenn soxna yi nga xam ne da ngeen fee nekk te seen i borom ñëw ñëwunu ma leen di ñaan li laay war a sóori ngeen wax ak ñoom te yàlla rek tax ndax dafa am loo xam ne ni man ci ñi nga xam ne ni ñooy dajale addiya yi jëm ci daara ji ci laa bokk wax dëgg fi yàlla te ma gis doxalin bi xaw a yéex lool lool lool mu jaaxal ma trop parce que tey ji mën naa ne gan ñi ñoo fi ëpp sax xale yu dëkk bi te tey bu doon céet moo fi am wala ngénte day fees dell te loolu rafetlu ma damay damay continuer waat di ko naqarlu donte bis bi taaru na macha allah te li fi wàcc yëpp njariñ la waaye nag faw ma soñ sama mbokk itam ñu gën a góorgóorlu bu baax dont am na ay jàmbaar ci biir wax dëgg fi yàlla waaye dama leen di soññ bu baax a baax a baax ñu gën a xam li suñu borom defal waaw ndax addis bi moom faral nañ koy dégg bu baax a baax ñu naan xayrukum man taallama alqurana wa allamahu ki gën ci jaam yi mooy ki jàng alxuraan ba pare te di ko jàngale comme yàlla dafa dogal ñun jànguñu alxuraan ñu gis koo xam ne dafay jàngal suñu doom alxuraan lan lañ war a def lan lañu war a def lu dul jàppale ko mën naa ne duñ ko jàppale suñu bopp lañuy jàppale ndax man amala saalihan fali si lépp lu waaye def sa bopp nga ko defal kon nañ jàppale waat suñu bopp jàpp daara ji nga xam ne wax dëgg fa yàlla daara ji ñun xam nañ njëriñam bu baax ndax conférence bi passé amuñu woon courant te sëñ bi ñaanaloon nañu balay conférence a ñëwaat ñu am courant yaakaar naa ne courant bi ñëw na kon lolu leer na te xubbul watani al iman bëgg sa dëkk si gëm yalla la bopp ñun motax chaque jour dañu wara gor góorgóorlu si yi nga xam ni daf ñoo raw te te mënuñu ko dabatal liñ ko mëna dabatalé moy ka si fexe ñi nga xam ni dañuy dañuy dimbali dañuy dimbali suñu njabot ci ci yar bi ak l'islam ji ñu gën ci taxaw ci seeni bëgg-bëgg bu baaxa baaxa baax man dal loolu moy sama yene ma ci woo terep tereb rawati na ndawi Touba waaw ndax amuñu lu dul lu ndax fi lañu fi la ñu yaroo fi la ñu màggee wax dëgg fa yàlla te bu ñu sañoon tamit fi la ñuy génne àdduna waaw te saa bu ñu génnee àdduna ñi ñu yaakaar mooy Serigne Touba Touba la ñu yóbbu te Serigne Fallou mi yaakaar naa ne képp ku yeewalulu di fi mu fi nekkeek léegi nga am koo xam ne dafa wàññeeku nga yóbbu ko Touba boo déparé lu yaa ngi koy fekk bàq ya mu toog di la xaar ba ci man mii sax sama waajuru jigéen kon nag kooku lan nga ko mën a faye moom Serigne Fall dana mën bis bi moo ko ñor alxuraanu karim muy téere yàlla suñu borom bi nit ku nekk ak bisam comme man Serigne Ndiaye mu ñàkk solo mii damay xewle gars yi bàyyi seen yitte yëpp jóge Dakar ñëw sëriñ Fallou mi nga xam ne moom lañu ñu yaakaar mu ñuy defal loo xam ne nii ci suñu waajur ci suñu njaboot mënuñu ko kooku bu nee bis bii dama ko dama ko fonk wax dëgg fi yàlla li ñu war mooy ñu fonk lekk ko bu baax a baax a baax a baax xam naa ne kàddu yi gudd na te toogaay bi yàgg na xanaa mënuñu lu dul di jéggalu waat bu baax a baax a baax si kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ñu ngi tuubaat bu baax bu fekkee dafa am ci dëng ci man mii la jëmu ji xeebu ji lu ci jub tamit suñu borom la subhanahu wa xanaa ñuy jégluwaat ñëpp di wàcce kàddu yi foofu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ bi mooy dolli ak cant ak i ngërëm ci ay mbokki boppam ak wëlëre yi ko suñu borom booleel ci góor ak jigéen ki ci jiitu sëriñ Baye Ndiaga Mbacke xalifatu sëriñ Muxtaar ma jigéen Mbacke teew na fi ñu ngi koy sant di ko gërëm sëriñ Baye Mor Cham Mbacke di ci sëriñ bi teew na fi ñu ngi koy sant di sëriñ maam Thierno Mbacke ibnu sëriñ Mbaye Mbacke teew na fi mi ngi koy sant di ko gërëm sëriñ Moustapha Mbacke Hafiz teew na fi mi ngi koy sant di ko gërëm soxna Bintu Mbacke di waajur ci sëriñ Fallou Mbacke mii soxna Bintu Guèye di waajur Serigne Fallou Mbacké mi ngi nee toog mi ngi mi ngi koy sant di ko gërëm Serigne Cheikhouna Mbacké Baara muallimul Qur'an jàngalekatu alquran ci Touba Baxdaad teew na fi ñu ngi koy sant gërëm sëriñ Fadilou Mbacké Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou Mbacké Cheikh Aram ak rakkam Serigne Mbacké teew nañ fi ñu ngi leen mi ngi leen di sant di leen gërëm soxna maa Xawa Mbacké nee na mi ngi koy sant di ko gërëm sëriñ Mourou xayra Mbacke xalifatu sëriñ Mbacke Mor ma jigéen teew na fi mi ngi koy sant di ko gërëm sëriñ Mokhtar Mbacke ci sëriñ Fallou Mbacke teew na fi ngi koy sant di gërëm sëriñ Xaadim Lo mu allimul Qur'an doon jël kàddu léegi jàngalekatu Alqur'an teew na fi mi ngi koy sant di ko gërëm sëriñ Abdoulahi Mbacke di rakk ci sëriñ bi di doom ci di di doom ci sëriñ Fallou Mbacke. muallimul quran di jàngalekatu alquran moo yor daara ja ca kër gi ca kër ga Touba nee na mi koy sant di ko gërëm sëriñ Mamour Mbacke di doom ci sëriñ Fallou Mbacke ak sëriñ Khadim Mbacke mi ngi leen sant di leen gërëm ak sëriñ Fadilou Mbacke docteur di doom ci sëriñ Fallou nee na mi koy sant di ko gërëm ak sëriñ Maam Ngañ li muallimul quran mi ngi koy sant di ko gërëm teew na fa sëriñ Mamour Mbacke Cheikhou sa teew na fi mu koy sant ko gërëm ak soxna nday mbacke cheikhou teew nañ fi ñi ngi leen sant di leen gërëm wa soxna nday mbacke mor teew na fi mu koy sant ko gërëm ak jigéeni wa kër ga ñepp ak talibé yépp goor ak jigéen ak fepp fu ñu mëna a rawati na wa dëkk bi di lulu ak ndereb ak ndongu ak ndogaan ak baye ak nduunduur ak mboolem tundu yépp neena sant na ñepp gërëm na ñepp sant na ñëpp gërëm na ñëpp bàyyiwul kenn ku ne àq ja yooyu ca yow suñ borom moo ko xam yàlla na ko matal ci ci ci matal ga ci matal ga gën a mat bàkki sewul xaddim asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu sëriñ Njaga Mbàkke nga xam ne mooy suñu kilifa kenn ku ne xam na yoonu Mbàkke ni muy doxe saa yu sa kilifa teewee rek daana ko moo yor baat bi ñoo koy sant di ko gërëm ndax tey mooy suñu kilifa suñu borom dëggal taxawaayam dañ ko tàmbalee ba léegi musu koo manqué benn yoon ñoo koy ñaanal suñu borom taxawu ko te yàggal ko fi lool Mbàkke ndax mën na kilifa bu mat kilifa ndax damaa soññ bis ba mu fi njëkkee ñëw lanama bis bii de. dëgg neex na ma gis naa fi dëgg te man dëgg ma ñor saa su ne maa fi jiitu maa fi mujj moom ma ko waxoon xam naa ne ci dëgg dong la nekk koy soññ nga ma bis bu ko waxee rek ñëw na teew ba ñaanal ñu koy sant ak ay rakkam yépp suñu waaw di jigéen soxna Binta moom sax waaye euh, dëkk bi ñu jàppee sët yi ak niñ jàppee doom yi xam naa loolu rek a tax xol xolam sedd ren sax na bëgg moom mu ñëw leen yaram wi waaye mënoon na ñëw ndax ñaanal leen ndax rëy loolu ci noonu sa waajur bu jigéen ñëw toog euh, gis li nga xam ne moom lañ liggéey kon na nga koy sant bu baax yàlla dëgëral fanam lu nga ne toog di sant soxna Awa mi nga xam ne moom it noo bokk waajur muy soxna Awa Bousso sama bàyyi tudde ko soxna Awa moom Cheikh moom ko Fadal yaay suñu fàllu moom suñu kilifa teew na ak mbooleem ñu teew ñëpp di sama dom sama xarit nak maa ngi ak Matar sama rak ñoom la sama suñu waajur ñun ñun la yóbboon daara ñu sama baay dañoo wëdd dañoo dafa rëdd tànkum ndajoor ba daana dénk naa leen man moom ak sëñ Matar mais ñoo demandoo daara kon loolu xarit mu ko weesu saa su teewee rek jël bu jëlal na ñoo sant waa kër gi yëpp ci seen tawaay rafet na dafa xaw a gàtt rek moo tax ñu gàttal bari na ñoo xam ne sax war ñoo jël kàddu waaye nag mbir yi dafa xaw a gàtt kon ñoo ngi sant bokki yëpp ginnaaw loolu ñu ngi sant bokki ñi nga nga xam dañu fee bokkoon nekk ñu andi ñu fi ngir jëmmi Serigne Touba bi ñu ñëwee ñi nga xam dañoo nekk waa dëkk bi ñu dalal mu wax dëgg yàlla sant nañu yàlla bu baax ci dalal gi ñu fi dalal ndax lenn lu ñu ci rëcc amu ci ndax li andi muy alxuraan ak njub leer téye nañ na ko bu baax a baax ñoo leen di sant di leen gërëm di sant waa Ndour Ndour ndax ñoo dëkk bu benn lañu ñoom seen doom yi nga fi jàng si ñu am fulla ak pas-pas ak pasteef lool kon taxawaay bi rafet na ndey daara yi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla alhamdulilahi rabbil ne kenn ku ci ne euh, taxaw nga ndax mboolem ñu fenn man defalu leen dara waaye sama doom yeeg sama jarbaat yi yëpp ñoo leen téye lépp ñoo leen koy defal kon loolu réy na ci man lool di sant mboolem dongo yi nga xam ne nag damaa nekkoon ak ñoom daaru tansil suñu borom dogal mboolem yi ak ñoom lay xam moo yoroon rajo bi ak ndongo seen ak Fallou Seck mi nga xam ne moo jiite daayira sëñ Mamour ñoo ngi sant di ko gërëm bu baax ci moo taxawaay bu rafet bi ngeen taxaw sama xol seet na ci ñoom lool ndax ñoom fañ na rek na fa nekk am jub ak jaamu yàlla ak sell ak maamu kon na ngeen am barkeb alxuraan ci barkeb sëñ Tuubaa di sant euh, sëñ Assane bu baax moom it ñu ngi sant di di ko di ko di ko ñaax mu gën a góorgóorlu rek ndax moom mm, wax bu rabbu ko attaaya dëkkal yàqin rek li am solo daal mooy ak njub nekk ci ba ba ngay faatu rek yàlla na ko yàlla dimbale te jàppale ko àggale yi yéenam ji ma am ci moom yàlla na ko yàlla àggale te musal ko ci am ndox musal ko lépp loo xam ne dana tax mu rëbb àgg ndaw moom ñaanal ko lool rek ndax xam nga maanaam bakkan dafa xaw a dee war lool ca maanaam li naan matu matu tagg dafa nek galon ko ci doomu adam ngagne dafa nek galon ko ci doomu adam ndax sa yu la tagge nga ci sa bop rek yàqu man ci am sa su la ngagne nga nga mer yàqu man ci am motax mu nit ki sa yu ne ci njub rek soññ ko te ñaanal ko ci yalla rek ngir suñu borom degeural ko ba liggéey mu liggey mu sum suñu borom agal ko ci jamm ak salam kon dal ñu ngi sant ñep di góorgóorlu bu baax rek tu tank yalla yalla yalla jappale ndax ñi ngi dem bu baax rajo yi ñom ñoko mom moom yi ñom ñoko mom waa dëkk bi jàppal leen ci ba li mu war a am lépp am na ko waa doo koy daara yi bu ñu yëkkatoon tey xasaayit nga ne alhamdulilah bu ñu doon jàng xam-xam nga ne ñu ngi jàng téere Sëñ Tuubaa yëpp jàng xasida jàng alquran jàng xam-xam maanu sell jub fawuma fanuma nag bi ma ko leen ko waxee nangu ngeen ko bu baax a baax a baax man daal li Sëñ Tuubaa bëgg ci dëkkam ne moom laa bëgg fii soxlu ma musique soxlu ma tëgg soxlu ma góor a jigéen di jaxasoo ñu dala waaye say yaag say maam man loolu itteelu ma li mu itteel daal fu ñu mën a daje jàng alxuraan jàng xasida waxtaan njàngalem sëñ Tuubaa ñibbi loolu mooy li nga xam ne bu ñu ko defee danañ ci am ngërëmal yàlla am ci ngërëmal yonent bi am ci ngërëmal sëñ Tuubaa waaye daje dajente moom loolu amul benn njariñ tey wàññi pan bu baax a baax am ko amul benn njariñ sëñ Tuubaa nee li mat a def li mut a def li watandi koo def li mat a def mooy jàmm yàlla li mut def mooy am li watal na ko def mooy ak mooy yàlla daan na jàmm yàlla fépp ko waay nekk rek bu fu jàmm njëkk dana dana mujj kon li am solo mooy yàlla daan ne watal na ko def mooy am bopp am fa def fépp waay def bu fa jàmm njëkk du bu fa njëkk jëmm njëkk du fa mujj kon nañ watal ko am bopp amul benn njëriñ di watal ko ak mooy yàlla ndax mooy yàlla moom amul njëriñ adduna amul njëriñ àllaaxira te sëñ Tuubaa ko tomboon nañ góorgóorlu baax ci ndigal sëñ Tuubaa ak gaa yu baax yépp sant jabaru Alaaji Malik ki nga xam ne ñoo fi nekk muy sëñ daa ji muy jiitu ko ñoom ñëpp wax yàlla taxawaay bi rafet na seen doom yëpp fa la ñuy jàngee amuñ frontière ci lenn ak tund yëpp rek ni ko sëñ kii waxee sëriñ Ndiaye waxee kon sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp yàlla yàlla dafa ñu jàmm yàlla yàlla dafa ñu tawféex yàlla yàlla dafa barke yàlla yàlla nangu liggéey bépp ci barkeb sëñ Tuubaa ku fi teew yàlla na yàlla faj sa ajo ci barkeb sëñ Tuubaa ku fi teew yàlla yàlla defal na tawféex bu wér dafa la insaan bu wér waa dëggal mhm. di ñëpp rek di sant bu fàllu ñag bi nga xam mo moo yor xasida yi ndax moom it wax dëgg yàlla bu mu nekkee tu tànk suñu aw waajuram jox nu ko mu nekk suñu loxo yàqul ñu dara bëgg dem rek maa ngi wax ci jàkka ji ne leen yéen de ngeen sant yàlla ndax ñi nga xam ñoo leen ci ñoo leen ndax ak euh, ak mudu nga nekk na fi ci gis na bu duñu wax duñu bëre lépp lu ñuy diglé ñoo ñanga ca yeen nak ginaaw ñooy seen njit tan gën leena jup jub ngeen sant yalla ndax mom mo yar xasida yi top ci ginaaw seen asam seen digënt ak ben rëng-rëng mu def afur mu def seen asan jëwrin seen asan def rako def ko rak ñu top di ñu ànd topp di gël yalla kon nañu góorgóorlu baax xam ne euh, liggéeyal yàlla moom képp ko def do ko reccu waxtu wu ne koor gu ne mo fi naafil alquran mo ba dàq alquran fop toll ñu waaw moo ma dàqal loolu kon sant yàlla la ak koor bañ koor bu ne moo fi jiite alxuraan ba mu noppi mu ñaan mu xatmu bi na ko tubaa defee ñu ko defee fii ci dëkk bii ñoo ngi ñaan yàlla nag loola mu sax dàkk ndax day jiitu ndax day jiitu sëñ sa ne ci gannaaw di ko di ko xool kon kon nu wax ko doon de kon ñu sant ñëpp ndax daara ni tubaa di doxe ca ca daara yëpp noonu daara ji doxe jàngal alxuraan jàng xasida jàng xam-xam yare képp koo xam ne sax yaa ngi football mbaa nga dem ci xew di def loolu noonu su la seen gisee da nga da xam kon nañu góorgóorlu ci ci ci dëkk bi ndax ginnaaw damaa ñëw dëkk bi kon maa ngi wax ndawi dëkk bi bu baax nañu wàcc ko wame bu baax rawatina waa Ndakaar yi nga xam ne dañoo nekk Ndakaar bu ñëwee doon fi ay gan nañu wàññi xeeti football yi ñuy def wàññi xeeti euh, làmb yi ñuy def nañu ko baax amul benn njariñ waxoon naa leen ko ci ci ci ci ci ci jamonoy ci jamonoy nawet bi nañ ci góorgóorlu ñu ngi ma ñu ma ciy dimbale bu baax nag amul benn njariñ foo amul benn njariñ nañ ko wàññi ko bu baax a baax a baax buñ ñëwee rek tënku ci njàngalam sëñ Tuubaa ak njàngam Seex Alaaji Malik ak nañu daan def ñu def ko rek nañ ma ci dimbale bu baax a baax a baax ndax bu ma defar seen i doom ak seen rak ñoom ñu doon seen i mag ñëw di leen woo ci leneen bu baax defar bi day xaw a metti te dama di defaral rek fexe ba sa doom nag jub sarak yàlla mbolam serigne ci fi nekit ñoo ma ngi leen defal seen talib ndax seen talib ko xana sa talib yakko ko jangal ñu jangal lako yaral lako kon ka lako defal war ko ko sant war ko ko sant bu baax baax baax baax kon jere gene jëf jere gene jëf jere gene jëf yalla ñu yalla gëreum kon señ jaga ñep ñep talal señ jaga mbacke bi di sama mak mi ñaan ci barke serigne touba barke mamam ndax kat gis na ko ko mak wa gisuma ko gën baax ku sel jaam ko tub yalla nangoo liggéey jub lépp lu nit di sàkku ci ak ma nga ca kon lu mu ñaan yàlla nangu ko kon nu ñëpp tallal mu ñaanal ci barkeb maamam barkeb maam ju baax ja ndax kat turandoom moom mais turandoom turandoom sëñ tubaa moo ko waxoon ne ko waaju baax nga te waaju baax dënn ba du feeñ muy siyaara suñ Tuubaa mun na ko sa dënn bii de day feeñ te yow waaju baax nga xanaa xam nga waaju baax dënn ba du feeñ te sëñ Tuubaa comme ne ko baax baax nga moo ko waxoon maam nee wax ko sama maam kon man loolu lay dama sëñ Tuubaa kum na baax nga baax googee na ne ci noonu lu leen lu loolu nag nu soxlawul ko mu jërëjëf télévision d'Ibawal.